maa dañoo demoon banque bi dañoo retiré ci xaalis banque bi daal di juum jox ñu 4 millions 500 boobu. de plus. tamit nit ñi joxe xaalis bi dañoo jël rek fañ ko doon yóbbu daal di koy may jox fuñ ko doon jox moom tamit compté wu ba ngoon rek waa banque bi daal ñuy woo ne liñ leen jox daaw ah bu leen ñu ah kay. xool leen seen reçu ñu xool suñu reçu gis vingt millions cinq cent ñun loolu lañ ko doon jëlee xam nga nekk ci reçu bi mais ñu ne ñu ñëw leen il faut ngeen ñëw parce que li ñu leen jox daal ah ñu dem min demee ñu jox ñu oto jox ñu chauffeur ñu war a dem kër gi nga xam ne fa lay yóbbu xaalis bi ñu xool yi ndax dafa ëpp wala dafa manqué ñu dem na ñëwñu ah ñun kat waa banque bi nee xaalis ñu ko te ñun tamit bi ñu koy wàcce fii xaalis bi compté wuñu ko yéen 22 millions lañ leen waroon jox waa banque bi nee nañu 25 millions lañ ñu ah waa bi ne xaaral ma génn xaalis bi man compté wu ma ko man ju fekk xaalis bi compté 4 ëpp 4 millions daal di koy jënd ngir waa banque bi waa banque bi dama yow dootoo ragal saa yoo ñëwee rek ba <laughs> xëy ginnaaw suba si di di leen versé ñëwaat beneen xaalis ma ñëw ne ah yéen waxoon duma ren de ñu ne ma excel ni toogal fii toogal toogal bu kii passé rek keneen <laughs> maanaam xaalis bu ëpp war ko lekk parce que moom moom xaalis su ëppee dañ koy delloo ko moom li ëpp ci liy dugal nit ñi safara mooy lu ëpp loolu lu ëpp loolu ëpp loolu li ëpp ëllëg